gërëm leen bu baax sant leen ci ànd bi ngeen àndandoog Feeling Dakar la chaîne leader am mbégte mbokk yi di leen dalalaat seen beneen émission kéemtaan tey ñu am mbégte lool euh, euh, danoo koo xamante ne bii kilifa la jotuñu ko présenté euh, ci réew mi à travers. révélation yi nga xamante ne bi mi ngi koy defaay te liggéeyam bi nga xamante ne bi naw nañu ko ci un peu partout à travers euh, diaspora bi kooku nag euh, moom la ñuy woowee euh, Cheikh Lamine Dramé Cheikh Lamine Dramé mbokk yi xam ngeen ko miin ngeen ko feeling fii ci feeling Dakar saa yu fi ñëwee rek wax fi loo xamante ne bi wala jëf fi loo xamante ne bi ñëpp dañuy gën a naw xam-xam bi mu yor macha allah Cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi lay fay lu bari yow itam di la ñaanal jàmm di ñaan yàlla na jàmm tàbbi ci yow tàbbi ci mboolem jullit yi. Mhm. di ñaanal kër gi nga xam ne mooy Feeling Dakar yal na yàlla daf fi jàmm saxal ko fi daay man mhm. di nuyu madame Diop ak sama xarit sama sopp Seydina Haline mhm, eh, moom itam maa ngi koy siyaar lu bari di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan eh, scène bi di Feeling Dakar nga xam ne askan wi yëpp moom la ñu seetaan. ñëpp di siyaara ñëpp. macha allah euh, Cheikh Lamine Dramé kër gi euh, doo fi gan miin nañ la fi et c'est vrai que euh, c'est la première fois ñuy jàkkaarloo waaye itam yàgg nga fi jàkkaarlo ak Seydina Alioune oh. wax na fi ay kéemtaan waaye itam wax fi ay kéemtaan ci lu bari loo xamante ne bii ci sa liggéey la alors tey fi may jor ak yow nag mooy. ku ne xam nga ni euh, bu mbir dee xaw Sénégal Cheikh Lamine Dramé dafay génn wax ci ay mbir yoo xamante ne bii euh, dara du ko dindi wala mu jëf ci ci ci ci wàllu baatin bokk na ci euh, qualification bi nga xamante ne bii ñi ngi ko soog a am yàggul bërki démboo Ndiaye génnoon nga wax ci wala jotoo woon ci wax lu mu ci mën di doon liggéey nga ci ci baatin pour qualification Lions yi. waaw macha allah ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax di la ndokkeel di la remercier ci question boobu mm. di wax na nag. Euh, man euh, tàmmumaay wax lu amut. Mhm. qualification coupe du monde yi yàlla dogal na bokk ma woon ci maaraay yi ci doon ñaan. Mhm. Euh, su ma ci bokkoon it dinaa wax ne bokk naa ci maaraay yi ci doon ñaan. Mhm. waaye bokkuma ci ñi sélectionné pour ñu ñaan ci. waaye nag bokk naa ci Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla seen réew jëm ca kenam danga doon wax naan équipe bi bu ñu la ko joxee dina dem foo xamante ne bi lan moo tax sëñ bi nga osé taxaw di laaj équipe bi foo ko teg. waaw dama waxoon ne nañ ma jox équipe nationale bu Sénégal ma jël coupe d'Afrique. Hmm. donc bi ma ko waxee booba Coupe d'Afrique jegewul sax wax naa ko at ak lu topp. Mm-hmm. sa parce que Sénégal Algérie dama leen waxoon ne Sénégal day ñàkk match bi ci final. Mm-hmm. waaye nag yàlla mi maye. Mm-hmm. te da xamle bi ma xamee tamit ne Sénégal day jël Coupe d'Afrique. ñëw naa samp suma ndënd. dam naa ci média yu bëri wax fa ba jàppante naa ci benn journaliste bu mag a mag. man naa am sax loolu gannaaw yàlla mu wateree dem Coupe d'Afrique. ah bon parce que Sénégal moom. jàppante bi ngeen jàppante jàppante rek. man naa moo ñu tere moo ma tere dem Coupe d'Afrique waaye l'essentiel na wax naa ne leen nañ ma jox équipe nationale bu Sénégal ma jël kub bi su ma ko jëlee ba pare te li nag benn maaraan ñemut koy wax kaay ma liggéey ba pare nga soog may fay amul ku ko ñemee wax. yaa waxoon ne nañ ma jox équipe nationale nañ ma ko jox ba ma pare ñu soog may fay. billaahi wallaahi wa taala wax naa ko ci seen yu bëri wax naa ko 2 wax naa ko Walf ñaari yoon. fan nga tegoon loolu ci gisin la gis boo gisoon ne Sénégal day jël kub bi wala ci sa liggéeyu bopp nga ko tegoon. waaw xam naa ne Sénégal mën naa jël kub bi ren loolu moom bettu ma xam naa ko xam naa ne it yàlla may na ma ay pexe yoo xam ne kàttan kàttanal na ma bu mu ci sooboo ci ndogalu yàlla moom mën nay nekk loolu moom xam naa ko loolu moo taxoon ma osé wax loolu. ñu ngi dem coupe du monde est-ce que doo taxaw laaj équipe bi pour ñu jël coupe du monde. wala loolu moom sañoo ko de. équipe nationale bu Sénégal dootuma ko laaj. Ah. parce que soo ma koy laaj. dafay am lu muy nuru. te comme sampoon naa ndënd laaj ko. te bi ma ko laajee seeni borom dégg nañ ko te man am naa information yu leer nañu ne même maxtar ba muy nekk ministère sax déggoon na loolu. président fédération bi dégg na loolu. donc amatu sens ci may taxaw ne nañ ma joxaat équipe bi parce que man suma ma su ma dépasse équipe nationale yaru ko waaye nag sénégalais laa comme sénégalais yi am naa droit gis dara suma réew na nañ ma jox nangam ba ma pare ñu sox may fay waaye nag kii wax ak yow na la waa ji day dóor day nàngam donc ñëpp mënuñoo boole dóor yàlla jamono bii may wax ak yow fi mu nekk nii fii tembe boo demee sapon euh, ay yeneen dëkk yi ñu ngi seen bët mu ngi waaj set. donc ñun ñu ngi ci dix-neuf heures moins. Cheikh Lamine Dramé yow. yow yow yow yow yow dëgër nga fit de. Mhm. équipe nationale ak ni mu toll coupe d'Afrique ni mu toll nga taxaw osé laaj équipe bi ne nañ ma jox équipe bi ma liggéey ba pare ñu soog maa fay. parce que c'est vrai que bu fekkoon ne tegoo ko fenn doo wax nañ na nga naa liggéey ba pare ñu soog maa fay. billaahi wallaahi watallaahi ci lu leer laa ko tegoon. te gannaaw équipe nationale bi mu jàllee taxaw naa lancé de vie xëy na da nga ci ñëw. Mm. ay homme ne nañ ñëw tànn naa ñaari maire yoo xam ne pare naa bu ñëwee ma fal leen ñu nekk maire te billaahi wallaahi wa taalaahi ak fii may wax ak yow li ma la waxoon daf naa ko li ma waxoon ñaari maire yi ñëwoon ak man xanaa dañoo gorewut kay waaye li ma waxoon ak ñoom daf naa ko. fal nga ay maire billaahi wallaahi wa taalaahi profité ci suma téléphone. alors euh, naka la demee woon c'est-à-dire que dañu ñëwoon ne la euh, dañu bëgg comme ni ngay assuré noonu nga assuré ñu ne ñu dañu dañuy doon maire assuré ko déjà. ñu ñëw ma ne leen. Hmm. dañu am intermédiaire yu dox suñu diggante dañoo ñëw soxla ma. Hmm. ñu wax man leen da di jënd sarax nangam ak nangam ak ndàngam ngeen jox ma tur yi ñi ngeen xam ne yéen ak ñoom yéen a ko séq. Hmm. tur yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko séq su ngeen ma ko joxee bu soobee yàlla li ma ci war a def bu ma ko ci defee ba pare mbooloo yi am ñoom dañu tasaaroo te gis nañ ko. man nag mystique li ma ci gën a man mooy tasaare mbooloo politiciens yi moom maa ci aay. parce que gàllaaj gu ñuul nga yore. politi du ma du ma la sax jaarale yoon. maa ngi lay waatal ci alquranu karim Macky Sall sax su ma ko armaloon dama ko dama koy song dama koy gañe billaahi wallaahi watallaahi te ay nitam xam nañ ne man mën naa li may wax sa parce que essayé nañ ko galaaj bu ñuul nga yor sëriñ bi sax ay ñaan dafa doy waar parce que boo dee ñaan souvent dañu lay gis yow sa euh, liggéey doo ko defee euh, ci euh, jàkka doo ko defee ci jumaa doo ko defee ci alxuraan mais dañ lay gis ngay dugg ci ay kàmb yenn saa yi nga yéeg ci ay ay garab yenn saa yi nga nekk ci ay àll bu xonq pour liggéey moo tax boo nee euh, tasaare nga gën a man euh, ñu gëm ne gàllaaj bu ñuul boobu moo koy def. waaw maanaam mystiquement. Hmm. politique dafa am yoon. dafa am luy boole am luy tasaare. am na leader bu la sonal bu nga ko fay jëlee tasaareel. am na koo bëgg samp booleel. dafa am lu ne dafa am lu ko tax a jóg. man nag mystique man nëbbatuuma man gàllaaj bu ñuul lay liggéey. yére yi yi may liggéey war naa la ko donc yi ma liggéey maa ko yor ci sama téléphone amul leen lu ma ci wiri wiri képp ku ma ne la liggéeyal naa la ko résultat yi mu ci sama téléphone waaye nag duur na ñëpp laa ñaanal mu nangu déedéet. mais sëñ bi xanaa yow boo sampee boo sampee jeeg ci biir kër ne ko fii doo fi am mujj dootul am mujj. waaw loolu weerante wuñ ko loolu kay wax naa ko fii Dakar loolu benn lu ñaar. koo samp koo samp sax nga koo garantir. billaahi wallaahi wax naa ko fi mu Dakar lu benn lu ñaar bépp jigéen boo xam ne ak foo mën a ne ci àdduna waxtaan nañ ba déggoo li ma la wax nga àttan ko te man ko nga def ko bu sa jëkkër takkee wujj utal xaj bu ndaw tuddee ma ko ci sa kër. de du wut xaj bu ndaw mais day jël day jël si xaalisam. bu fekkee ne non loolu sax wax naa ko ba yàgg man nee naa ko su ma la liggéeyee boo gis da ngay ñëw ma dollal sa xaalis loolu wax naa ko bu yàgg. koo wax ne doo am wujj. su amee wujj na ñëw jël si xaalis loolu wax naa ko bu yàgg su ma la ne doo am wujj ma liggéeyal la nga gis wujj kay ñëwal ma doolo la sa xaalis xam nga koo xam ne yow da dem sa jëkkër takk beneen jigéen wala sa jëkkër nekk doxaankat nga ñëw wax ko mu miinal la sa jëkkër ba nga xam ne sexem bi du mën a dem ci moom dara jaaxulu ko xanaa est-ce que li ngay wax ni sañ nga koo wax kuy wuti visa war a ñaani visa ñu war koo may wala kuy lijjanti ci benn këyit nga ne ko soo demee te mayuñ la ñëwal ma joxaat la sa xaalis bokk na ci samay client tey da ngay garantir loolu dégg dégglu ma dama ne bokk na ci sama client yi ma indil loolu bokk na ci garantir këyit ak mu jafe. seet teet teet dama ne na bokk na ci laa wax yi ma suma client yi yi ma indi bagage tey bokk na ci. alors euh, euh, Cheikh Lamine Dramé noonu euh, Cheikh Lamine Dramé moo nekk noonu mbokk yi xam ngeen ko ci gàllaaj gu ñuul lay liggéey gàllaaj gu ñuul nag ku ne xam ne ne xam na li muy def donc cest à di que gàllaaj bu ñuul bu ñu ko day wax mooy assuré amul lii moo koy toj. amul lii moo koy yàq amul lii euh, c'est vrai que nit aussi yenn saay mu def njomme wala yenn saay ñu bëgg koo euh, pexeel ba dugal ko kaso mën nga koo garantir ne ko doo dugg. waaw. waaw lu mën di xew dugg ci kaso bi. waaye dama ne man waxuma ko pour Sénégal nag waxuma ko pour waa Sénégal pour yow balaa police su Sénégal bi wala brigade de recherche bu Sénégal nga commencé dama wër jaayuma ko waa Sénégal de waaye ñu ne bitim réew te da liggéey ci li nga xam ne dañ koy tere laa wax. loolu dama ne maa yor ndomb goo xam ne ku ko takk bu ñu la jàpp juróom-ñaari ngaw doon suñ la jàppee oo ma téléphone mbaa nga yóbbu ma ci police bi la gën a jege. ah waaw. ku takk sa ndomb bu ñu ko téyee police. na yow diggoo dama romb yi ngay wax. non mais yii ngay yii yii nii sëñ bi mënoo ko romb parce que yii. yii déjà moo nekk li. gën a li gën a délicat li ma wax nii yëpp benn bu ne def naa ko ba am ci résultat waaye man dajalu ma xam-xam yëpp de xam-xam yëpp peegu ko dajalu ma xam yëpp waaye nag am na lu ma xam taman ko. li ngay wax ni doy na waar de sëñ bi. waaw dajalu ma xam-xam yëpp nag. ndomba goo xamante ni boo ko takkee allah kulaal police duna la nit. billaahi wallaahi wa taalaahi nga téye ko waxuma nag fii ci Sénégal yow police balaa nga <laughs> balaa nga wax ne damaa taxaw pour yàq sa réew mais ñi ma koy jox bitim réew la ñuy dëkk lañu nekk fa la ñuy liggéey jaay naa ci quatre ndomba. kenn du la contrôler déedéet loolu bu yàggu rek laa ko mujj a liggéey nii du problème. alors euh, euh, Cheikh Lamine Dramé ngi noonu mbokk yi euh, yaakaar naa ni miin ngeen ko moom itam ci ay révélation yi nga xamante ne bii daf koy def yan saa itam ñu dégg la nga wax mel ni ku garantiir benn artiste boo xamante ne bi wala ay artiste yoo xamante ne bi dañuy ñëw ci mais yow sëñ bi mbër kay bu dee bëre war nga koo mën a garantir ba bu demee daan. wala bu daanu wala wala bu daanul ñëw jël si xaalisam loolu kay werantewuñ ko man kay xam nga xëy na sax li nga wax sànq rek ñu ngi soog a def émission maa yow waaye man ñi ma miin yëpp xam nañ ne maa daf naa ci làmb lu tax ma ne bàyyi naa làmb loolu xam na xam nga wax naa ko. def nga ci làmb lu tax ma ne bàyyi naa làmb donc du ci ñëwaat waaye liggéeyal naa mbër mu leer ma ne mbër mi mu doon dajat bu fekkoon ne maanaam domestique. Hmm. deux deux minutes yu baax duñ ko def te daan billaahi wallaahi wa taalaay mystiquement ma liggéey ko ci ay léer ci ay yàlla baax na donc li ci war a def yépp ma def ko ci ba yàlla defal ko sutura moom wallaay walxasim lur benn lur ñaar waaye nag man damaa bàyyi làmb da nga bàyyi làmb dama ba làmb parce que bi yi gën a bon ci àdduna mystiqueu làmb ci la bokk te man am na lu waxuma ne tuub naa ci côté yu bëri waaye damaa bëgg a wàññi nag loolu moo tax parce que xam naa li nekk ci mystique làmb ak li muy laaj ak li muy dund moo tax nag dama koy moytu toujours làmb moom fu ne teg naa ko ci suuf dootuma ko liggéey. mën nañ la woowee de euh, Cheikh Lamine Dramé garantie. te garanti la nit ñi di wër garanti la parce que nit ñi dañu lekk seen xaalis lekkati seen xaalis lekkati seen xaalis fi mu nekk nii garanti la ñu wër maanaam ku laan leen lii boo ko deful ñëwal jël si sa xaalis garanti alors euh, sa ay garanti est-ce que itam bokk na ci euh, nga garantir nit ki euh, ci wàllu liggéeyam ci place bu mu ne. waa bu dee dañ ko fay final. Hmm. bu fekkee dafa nekk ci place di liggéey ñu ko fay buntu xatal wala ñu ko fay final. che dama koy garanti kay dama dama dama koy defal liggéey doy waar sax sa parce que dafay daan doole pour yóbbu ci njabootam képp ku pare pour dox sa digganteeg sa wërsëg bi ngay am pour yóbbu ko sa njaboot kooku dafa pare pour toroxal la hmm. ku pare pour toroxal la nag boo ko toroxalee dara newut ci hmm. Hmm. loolu dama koy def lu bari wax dëgg yàlla Cheikh Lamine Dramé euh, mu ngi noonu alors euh, dañu lay dégg souvent euh, mënuñu waxte duñu wax ci actualité diggante Sidi Diop Wally Seck souvent nga def ay révélation fi mu nekk nii présentement gis nañu albu li Wally Seck mujjee génn ak Sidi Diop ak toppante gi tey sa xalaat en tant que nit boo xam ne da ngay wax ci actualité souvent ak mystiquement est-ce que dafa am côté mystique Wally dafa am mystique waaw fi Sénégal de ko amul mystique man sax dafa jafe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 Dakar, notre plateforme d'information.